ah naturellement day am ndax euh, liggéeyu nit la rek euh, boo xoolee kuy liggéey guddeeg bëccëg ci ay fichier lu ñuy woowee système noo def euh, dina am moment bu muy sonn ak juum si nu muy entré chiffre waaye loolu man tey comme ni ma ko waxee du ma ci insister parce que boo demee ba jàll war nga tam magnifier vraiment nombre bu gars yi dugal ba nga jàll parce que ay nit ñoo ko dugal ah c'est vrai que am na ay erreur waaye machine bi moom Euh, bu amee erreur rek la lay rejeter donc euh, côté boobu moom euh, maa ngi lu may option bi ma jël mooy retenir l'aspect positif te di vraiment remercier ñu ci liggéey yépp parce que doonoon na liggéey bu jafe liggéey bi nga xam ne day jël gu guddeeg bëccëg